Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance renouvelée, merci de louer des likes, merci de louer des abonnés, merci également du bail, c'est des commentaires, un hein, plaisir renouvelé chaque fois de partager gain information yi hein. sénégalais yi fépp foo 14 régions du Sénégal àdduna wërngal këpp ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci l'hôpital hôpital sécurité du février, yàlla na suñu borom fëgg seen de ngi bëri jàmm ñu nekk ci kaso yi nga xam ne judiciaire ak jii ñeen lu ngeen deful moo leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa tegaat leen ci yoonu dëgg ñi dëddu àdduna suñu borom xaaleel àjjana fi daw si gars ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV l'actualité en continu actualité bi dañuy waxtane ci li nga xam nak moy coupe du monde ba ci Qatar bi nga xam nak dañ ko décalé euh, yobou ko ci benen date loolu la waxtane lan moko waral ak aussi Robert Lewandowski bi né mom bëggut a daje ak ñoom Sadio Mané ak Bayern Munich ci li nga xam ne Ligue des champions bi loolu yëpp dañ ci indi ay léral mais d'abord comme que dañuy dugg ci dynamique coupe du monde dañ leen di fatali gaay yi ñenn ñi ha ah, ñu leen laaj laay image bi lan la image bi kañ la lan la leen di fatali gaay ak ban occasion la won ak ki taxaw kan la ak lan la def ba tax ñi ci ginaaw aussi di jubilé loolu yëpp dañ leen koy laaj les connaisseurs hein, les amoureux du football pour un peu revenir également ci concept VAR bi ñu VAR bi également gars yi yóbbu ñu ci donc Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic qui se remet bien après sa son opération gis ngeen ah genou bi gars yi lañ doon piqûre ah, pour mu daal dindi liquide bi pour mu mënoon jouer ci euh, série A bi saison bi passée donc dafa mujjee opéré gis ngeen ko tànk baa ngi ni dañ ñëwoon donc ba huit mois lay pour reprendre Zlatan Ibrahimovic ki ngeen également di Goreska momit le joueur de la Mannschaft aussi du Bayern de Munich mom reprendre na entraînement yi gannaaw problème ci genou beeg yoy noonu mom nak reprendre mi ngi commencé wat daw di choki choki hein. Ah. donc di nek première image yi nga xamné ne la ah. donc mu reprendre entraînement yi di daw Goretzka pendant ce temps également Pini Zahavi moy Pinizavi Pini Zahavi gars moy agent bi yóbbu Robert Lewandowski du côté donc euh, du FC Barcelone mom nag jamono ji nee dafa bëgg relation ak wa Bayern euh, demat ni mu demee woon parce que nee xamné wa Bayern mer nañ ko mais mom dafa bëgg euh, jubawaat ak wa Bayern Munich pour indi fo yenen joueurs yo xamné mom mo la yor notamment ki nga xamné moy Christopher Nkunku nga xamné ne nañ Bayern de Munich daf ko ciblé bu féké né Mathys Tel bi ñu indi ren ji doxalul et que tay Nkunku également fi ak déwoon euh, contrat aussi gis nañ ay djégo mëna ci am ñu dal di koy recruter lool dal pinisa wi fi mu ni nii ci plan yu ni mel la daal di nekk maillot bi ngeen gis nak moy maillot sœur mooy troisième maillot bu waa Lille en hein. Lille champion de France en daaw ñom ñoom ñu nga xam nak ñoo ko Paris Saint-Germain jël ko Galtier mo nekkoon sen entraîneur ñom nak gis ngeen ah ñu ngi ni li moy sen maillot bi nga xam ne sen 3e maillot nek maillot bu rafet aussi bi nga xam ne wa Lille mom lañ sol saison bi ki nga xam nak moy mooy Hakim Ziyech Hakim Ziyech nag actuellement gaay mom il est il veut accélérer son départ dafa bëgg accélérer jugeem fofu non du côté de Chelsea parce que japp na ne Milan AC mi ñëw dafa ñëw rek jall dem mais mom dafa bëgg am opportunité waxtaan ak yenn club parce que dafa bëgg am temps de jeu waajal aussi li nga xam ne moy donc compétition yi di waa ji ñëw ki nga xam ne également moom ngeen di gis nii ah donc di Madi moom it nekk ci Olympiakos ah di coéquipier kii di ñoom Pape Abou Cissé ak également ñoom ah, kii Ousseynou Ba momit actuellement dal équipe yu nek ci euh, France notamment ay Marseille ay Lyon lu ñu mel lañu dal ñoo intéressé wu ci momi donc et aussi ki nga xam moy donc Islam Slimani Islam Slimani l'attaquant algérien man gaayen bi dama xamul lan la quoi xawma comportement xawma la mais moom un peu mbay la mais il est excellent c'est est un bon buteur mom actuellement dal Marseille moko bëgg indi Marseille mi nga xam day préparer aussi peut être jay Milik Milik mi nga xam Juventus mi ngi ci ki dag di Robert Lewandowski mom également néna donc par rapport ak li di Ligue des Champions bi ñaanu Yalla jouer contre ñom Sadio Mané ak ñom Bayern

nek na équipe bo xamné c'est une équipe bo xamné c'est une équipe très redoutable le Bayern de Munich qui s'est renforcé waa Barça aussi renforcé nañ seen équipe parce que équipe bu baax la ñama ah. en tout cas sur le papier maintenant nag ci terrain bi lañu xol ñom ñep ku nek lan ngay wone mais équipe Barça bi mom ah, elle donne elle elle donne elle dégage comme on dit day dégager donc ren mom Real Barça mom dina neex neex neex niñ ko bëggee hein championnat bu neex nga xam ba dernière journée do xam kan moo jël championnat lolu lañu dal di bëgg mais Sadio Mané en tout cas aujourd'hui lui mom de son côté il est en train de s'imposer du côté de la Bavière donc Lewandowski aussi dinañ ci dellu am yo détail, des détails buñ ko wax fi après des ngeen ko gis mais en tout cas dal Lewandowski néna bu ko a ak Sadio Mané ak Bayern de Munich li jëm nak ci coupe du monde ba ca Qatar Sénégal war Inch'Allah, dem inshallah rabi donc après 2018 après 2002 2018 2022 le Sénégal war fa dem mais tamit Sénégal xam ngeen mo jouer match d'ouverture bi mom ak ñi nga xam donc wa Hollande parce que Qatar moko ko jouer mais Qatar xam nga aussi ak décalage bi motax dañ né match ouverture bi Qatar la mais Sénégal yi njëkk a donc dafa melni Sénégal bo doon njëkk a joué léegi nag dañoo mujj avancer. li nga xam ne nag mooy match bi deux jours donc parce que coupe du monde mi ngi commencer le 21 manam le 20 lay commencer Sénégal le 21 lay jouer ba légui hein ah mais Qatar boy jouer le 20 premier match am donc contre Équateur nek match bo xamné ne également ñëpp nañ ko xaar donc règlement la bo xamné ne dañoo bëgg Qatar dal nek dëkk bi war a njëkk jouer parce que mom moko organiser organisé comme coupe du monde ni mu doon faral di amé temps yi nak aussi xamna né donc dina xawa a chamboulé tuuti kii bi li nga xam moy programme bi mais ça n'empêche que ne Sénégal donc jàppale ne deuxième euh, journée bi lay jouer donc euh, première journée bi ou match d'ouverture bi donc Qatar mom moo jouer inshallah incha rabi contre l'Équateur Sénégal wara dajé daje la Hollande ñuy ñaan nak Aliou Cissé yóbbu équipe bi gën ci équipe bi joueur yépp baña a ñun ñëpp ñu féké ko tal ko Sénégal dem fa def jéego bu rëy a en tout cas les gars ban xalaat ngeen am ci li nga xamné nak mom moy donc liñu avancer li du coupe du monde bi du d'un jour euh, aussi li nga xam ne Robert Lewandowski moom lors de wax ci ak Bayern Munich ak Sadio Mané woy leen like woy leen di abonné toujours un plaisir de vous servir sur Esport TV Ja, gen jeff.